Thank you. yitteel la lu ko ñor la sëñ bi daa wax ne seen jataay bii ngeen gëm ne ay ndaw ngeen yu ñëw ndaw ñuy liggéey waaye ay ndawam yu yu muy yónni ci nit ñi ci seeni moroom ci dëkk bi ñi fi yëngu ñëpp kenn ku ne di bàyyi xel sellal la ngay def liggéeyale ko sëriñ bi dëkk bi kenn ku ne boo xoolee sellalee sa xol sellal sa jëmm sellal la ngay def bu ko ñëpp defee rek lépp baax ok sering bi mu ne xelam gën naa dal bu baax bi ngeen ànd ak sëriñ Abdou Karim kon yow it yaa wax ne soxna maam xarit mi ngi leen di jàppale bu baax te léegi la ko sëriñ bi laaj da ngeen yor ñaari liggéey yu dend yéen ngeen di toog xel jënd gerte gi xolli ñoom ñu di ko kon da ñaari liggéey yu mënta tàggoo kon li sëriñ bi wax ne ngeen dalal seen xel bi ngeen ci ànd ak seetub sëriñ Touba muy sëriñ Abdou Karim na ngeen doon sama sama sama làmmiñ waaw kon ngeen gën a dal santaat yàlla bu ngeen ci àndaatee soxna maam xarit bi ngeen doon aw làmmiñam doon ay bëtam loolu mooy kenn ku ne ci natt ngoom wala moroomam wala dëkkandoom ju mën a doon kàdduy sëriñ bi kooka na ko yóbbuloo ba noppi door ko jottali nag kam ko mën a jottali ci wetam bu ca nun ñëpp àndee ca loola lépp day sell lépp day baax te loolu lañ ci mën a sëriñ bi gannaaw sëriñ bi defal naa loolu ci mënutoon ba noppi mi ne la ci des lépp nag sëriñ bi fàggu na ko ba noppi na ca kon noonu loolu rek lan ci man sellalal gi ak defar gi rek. jërëjëf ci kër xalifa bi ak ñaan gi nga xam ne ñaanoon ko ñu jógoon rek pour doon sàkku ji ndigal ci liggéey bi ñu jëm muy nouvelle campagne bi ak ci jëlante ko ci diggante ak naatangoo yi ñu jëm su siyaar di ko yóbbu comme en tant que taalibe ak sëriñam di sàkku ndigal it am itam ay étude yu ñu xam dañ koo amoon ci ay projet doon ko ko won di ko ci laaj ndigal mu rafetlu ko lool ànd si ak ñun te it jox nu ndigal ñaan lañu dugg ci campagne bi ak jàmm dugg ci bismillah gën ci alhamdullilah rabbil alamin idée bi am nak moy def sun bilan bi nga xamé ni association bi sosu naag léegi muy le 25 mai 2017 fin ci ci activité ak relation wala sun digënté ak autorité ak sun nata ngoy nga xam ne leen seqal filière bi ñun dal adop ñu comme ni ma ko waxee ci sun jotaay yu bari nda ay ndaw lan yu jóg organisé wu ngir dugg ci cadre kadre professionnel professionnel boobu nag ñu bëgg a dugg xëy na gone ku ko mag ku ne jiitu ko ci béréb dana ko wan aw yoon loolu moo waral suñu collaboration ak it ay mag boo fekkee ci yoon ñu siy dox def sa loo xamante ni résultat bu leer la mooy ko mel ni FNAPS nga xam dafa yàgg jiit opérateur yi daanaka ñoo bokk rôle bu dee COPEGA wàllu export la yor. fofit it danaa fi agsi ñuy sàkku campagne bi ñu du jëm manam état bi jappalé ñu ci jappalé go xamanteni dana and ay financement ay moyen ndax ñun kat am nañ pexé ci gerte gi bu dé walu huiliers la dañ fay évacuer normal wa adab loolu lérna DC DG Sonacos bu dé wal expo bi la lérna Habib Thiam président bi dañ ci duggal bu baax ndax daw campagne 2000 17 bi export am 72 000 tonnes euh, campagne 2018 bi xëy problème taxi mo doon sun jafé jafé ban yeex ko teggi waye bi ko relaxé batay am nañ ci lu gat gat ay 36 000 tonnes kon euh, état bi bu jappalé opérateur yi and ak ñom ci bu ndugulé dugalee seen xaalis mu gawa a génn kon yaaka naani man na bañu tit ci gerte gi ndax am nañ ci pexe ah loolu nag li koy waral mooy su libéré Chine ñu teel a jot suñu xaalis chinois bi nga xam ne day gan te ñun dem nañ siin li may wax leer na président ci am ak képp kuy voyagé Chine boo fa demee amul benn matière boo fa mën a am te jaaroo ko seen opérateur ñu dëkk sa réew ma kon état it nu mu teg ay taxi waaye nanoo defal sécurité boo xamante ni tey gan ñi bu ñëwee dana mën a jaar ci opérateur yi ñu jaay leen. man see am dara waye buñ ñu bàyyee chinois yi muy concurrence ñu japp marché pacc xol ko yobbu ko yenn prix du arrangé ñun du arrangé baykat bi ndax baykat bi fam ko ñak arrangé moy day top neexay bi dana neex dana neex dana neex ba finalement eh, ñu arrêté wala ñom ñu bayyi du mëna am ñu gisit dañuy am problème fi sarta sun gerte yobbu ko bàgg port buñ démé port mul vite garé fa chinois bi ñew xol gerte gi euh, dàq ko sans condition loolu nak tor bi ci bari ci ñun la ndax gette boo koy déplacer diko yobbu lu melni Dakar bon ko teg ay kay du leer mais bu fekke dañoo bayyi ci waaye mu dugg ci dekk bi xol rek magasin bi auto bu gerte jar 20 millions nga xëy ni indi ma 5 wala 10 ñu andi ko waxi si nga dàq ko ci ko si benn motif ko kit ñi ngi ñaan état mu wut mo mi xamni amna moyen yi tay mo nu jaboté mu nu mëna sécuriser bo gette gi bu duggé té fi bu démé condition chinois bi nga xamni moko jël man ko waccé ndax bari na lu ñuy def DPV di ko déclarer chinois bi day ñëw nax opérateur bi eh, defanteeg moom eh, dem DPV jël échantillon prélevé ko ba pare nga xam ne kon kooku wóor na ko ni am na stock bu 2000 tonnes trois 3000 ton day pare ñu fa ñukk kooke dem si kaneen loolu nag ñun dañ see tëlee ñuy tàllal loxo état autorité yi ku si man dara defal na ko si. di ñaan itam suñu doon taxaw taxaw dugal nañ campagne bi si jàmm génn si jàmm di santit sun kilifa yi aada yi ne fii li commencé si sous préfet préfet gouverneur ndax ñun dëgg la état bu ne ak ñam yilif waaye ñun daanaka ñoo ñooy sun gouverneur si ñoom la ni jaare ba wax suñu doléance te ubbil suñu porte koo si woo téléphone danga ko jot koo si seet réservoir kon ñu ngi ñaan daal mu gën noo téyel filière bi ndax ñun amul gerte gi suñ mun taxaayit bi ñu fa demee démb wax nañ lu mel noonu Cheikh Bachir bi ñu ko wanee projet bi pare na pour jox nu espace bu ñu ko def ci moomeelu sëñ Touba ndax gis na ni ñun kat daanaka ñoo industrie yi nekk Touba ñun opérateurs yi ndax ñoo fi créé suñu dàgg di si liggéey di si fay ay journée eh, économie bi si dugg ñoom xam nañ ko muy kilifa yi muy eh, gan ñi muy borom bitik yi fi nekk kon nee na ku ñu jàppale ñun sëñ bi nga jàppale. l'association des opérateurs pour le développement économique de Touba travail administratif bi ñuy def yëpp fii lañ koy defee alors nag ay ndaw lañu ay ndaw lañu yoo xam ne dañoo yàgg yëngatu ci wàllu gerte mais doon ko def nag de manière informelle bi ñu toogee ba xam ne war nañoo nekk en phase avec l'évolution humaine taxawal entité bi tuddee ko adopté mooy comme ni ma ko waxee sànq léegi nag ñoom dañoo bëgg nekk en phase ak li xew ci aduna créer administration bi jël li norme bi nga xamné mom la administration wax ñu top ko donc déclarer wu am kayit yu war yépp formaliser wu secteur bi ñuy yëngatu au niveau de Touba. ñu jéem ko professional yi ba loolu moo tax ñu taxawal association bi ubbi bureau yi li administration di def yëpp ñu ñu ko ciy def ci loolu it ci la ñu commencé saisir autorités yi ñu ñu war a saisir ñu ngi leen di saisir ñi ñu war a seeti ñu ngi leen di seeti ba ñu programmé benn séminaire bilan séminaire boo xam ne ñu ngi ci yëpp ci la ñuy invité

war ko présenter jour bobu war ko sédélé aussi ñi nga xamné ñoy ñooy suñuy partenaire ñi nga xamné ñom lañuy la ñuy ci bir rapport de performance bobu présenté nañ ci adop par le mot du président présenté nañ ci aussi tableau yi nga xamné non lañuy la ñuy présenté nañ ci tableau bu ñëk bi muy membre yi mu am une valeur de référence kañ lañ ko créé woon am ni ñuy fonctionner actuellement ak suñuy cible mooy fi ñu bëgg a yegg ah, ci campagne yi di ñëw 2018 2019 loolu ci wàllu membres yi adhérents yi wax nañ ci aussi ci wàllu centre yi centre aussi am nañ suñu valeur de référence am fi ñu toll tey ak fa ñu dem et de même pour les employés bu ci ne tamit tablo bu ci nekk dem nañoo xool lan moo ñu fa manqué ak fan lañ war a nan lañ koy saafara ak fan lañ war a mën a dem pour objectif yooyu ñu déclarer ñu atteindre ko ñu créer benn centre d' entreposage boo xam ne dinañ ko am si site bu bu bu baax boo xam ne même au delà du centre dañu dem ba mu doon une zone industrielle donc ñu mun faa toog dajale fa li ñu war a liggéey ci wàllu gerte ci transformation conservation yëpp nga xam ne dañuy respecter les trois unités dinañ am unité de temps unité de lieu ak unité d'action yëpp daje projet boobu aussi si jouru séminaire bi dinañ leen présenter plan d'action bi wax liñ ciy jublu wax ñi ñu buggee ñu jàppale ñu si di tàll loxo ñëpp ñoo xam ne. war na ñoo mën a jàppale ci étude de projet boobu ñu jàpp lañu si bu ñu paree ci loolu aussi kuy yëngatu ci gerte yaa ngi liggéey ak état yaa ngi liggéey ak ay privé di nga am ay côté yoo xam ne da ngeen fay am ay difficulté difficulté yooyu ñun niñ buggee ñu saafaraal ñu ko dinañ leen ko fa proposer di ñaan nag li ñu fay wax mu doon li gën si ñun gën si ñi nga xam ne ñoom lañ seexal filière bi